maa ngi lay kontaane eh, kontaan naa bu baax a baax a baax maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax di kontaan ci équipe bi nga xam ni ñoom la ñoom nga àndal vraiment di leen xam naa ni yoon yemu ci benn bu yoon jeexul waaxu sil di jeex ñu ngi lay bëggee bu baax a baax a baax di ñaan ngeen wax ma beneen group bi mën nañu installé wu nànk par nànk xam naa ni mu daanale ni mu jeexale ni jeexale ki nga xam ne mooy Alaaji Fàllu uh, di bàyyi Baye Cheikh Awa Balla Baye Cheikh nga xam ne moom la Cerno Saaxo yaakaar di sama bàyyi bopp caatu Sëriñ Fàllu ndeysaan Cerno hmm? xam naa ni Birane Ndour ak bëgg Sëriñ Fàllu Youssou kontaan ak bëgg Sëriñ Fàllu waaye Pape Cheikh Diallo kenn gën ko bëgg Sëriñ moom Baye Cheikh sama yaay nga xam ne ki nga xam ni uh, moom mooy uh, Cheikh Abdou Karim rek la yaakaar borom Makarimal Axlaq la sama yaay Ami Garas maa ngi koy kontaane bu baax a baax baax la sama yaay ji way neex na waaye lii way euh, li nga xam ni moom mooy euh, sama yaay nday jaar gi bu ñëwee euh, mag ñi nañuy woy ak ni xale yi di woy dafa wute du benn lu neex la taal ah da koo dëj mu toog ci toogukaay bi dafa teg taasu bi da koo riig ba mu riigu mu ànd ak moom naan ko caabaax taj ku caabaax sàcc xam nga loolu. <laughs> dëgg la dëgg la dëgg la ku mën a taasu. donc da koo teg. da koo réeg mu réegu. naan ko réegu réegu. <laughs> am alal la. maa ngi ñëw ci yow moom yi ah. maa ngi ñëw euh, donc euh, ci taas gi yow du ma la ci woo maam ran te noonu laa déggee euh, ñu dëkk caaro ñu ne ma fecckat bu mag nga. ku mën a fecc nga dégg naa tànk boo jug boo ko tegee ci suuf du laal beneen bi. waaw aba xam nga ñun dafa am ci ay jaar-jaar yu nekkoon. Mhm. wax naa ko korok ci lu mel ni ay simb. Mhm. <laughs> waaw <laughs> non dañ lay wax. dëgg la dëgg jaar ci simb. dëgg ko boo waxee simb Baye Mandione mi lu mu musa a fecc maa moom ñoo ko feccandoo. Mm, Baye Mandione mbër. waaw temps yi mi simb. waaw mm. ñoo àndandoo ci làmbam simb yi mu doon def ak euh, ñoom Baye Diop ñoom Malick Niass ñoom Ngatte ñoo ñëpp ñoo doon ànd euh, Ibou Sakho yàlla na ko yàlla yërëm. Mm-hmm. moom moo jiitu ñu koy ñu koy jàll ñëpp. mais mu doonoon loo xamee carrière la lu mënta ñàkk la ci jaar-jaaru ndaw mhm, mhm. moo tax tey sëñ Fallou mi ñu tudd léegi yàlla dogal na abaa dama bëri ay fan si Touba mhm, lii may wax ni dama koy may ñi nga xamante ne ñoo ma bëgg lool te nekk Touba parce que euh, mamraan damay wax chaque jour rek ne mamraanam ñëpp la kon donc lii ñetti baat la rek wala ba ñeent sama xol laa ko euh, mébét mhm. mu doon loo xamante ne dama koo bëgg mhm. parce que man moom lu jëm ci wàllu Serigne Touba dama mhm. am cofeel bu yaatu lu dëggu ci man nag laay wax am na solo yàlla xam na ko ku ma jege xam loolu baaraay Modou Lamine moom Modou Lamine baara yow baara ku la way am ndam baar sax muritoo baar way Modu Lamin Mamadu Lamin baara sama ma seexal ñi fi raw baara saxaaya waaw jaara jaara Ah, foofu baax na mais euh, noo def ñu seer ci mbokku taalibe yëpp yëpp yëpp mais euh, ci lébu waaw am na wayu lébu yoo xam ni faaw nga indilaat ñu ci am naan tey dinaa la piégé waaw su ma la fa indee xaaroo ko woon waaw waaw euh. waajoo ko woon sa scène bi nga dugal ko ci biir mu ngi laal sa micro waajoo ni dinaa la laaj tey ci maxu lébu gi waaw maxu lébu gi ndeysaan yaa ngi may yaa ngi dugg fu abaa yow am na ku la ku la dee <laughs> non la dee quoi parce que dama la euh, waaw xam nga maxu mhm. euh, ñu koy nuyu mhm. mu doon naan naan loo xamee lan bàyyi caara ah, ñu ñu ñu tuuti mhm. maxu mu doon ndaanaan loo xamee ñu ngi ko bàyyi caare aba mu doonoon koo xamante ne dafay way loo xamante ne moom tey jii bu ñu si jëlee euh, repère rek dañuy dañuy xam fi ñuy jëm parce que waxoon na fi li fi maam bay woon ba yàq na ko ba yàq na ko ndaw ñi sànku nan noo mu ne dama laa bëgg yilif nga bëgg maa yilif ndigalu maam day dellu ginnaaw ah mënatuma yilif doomu jàmbur ndax lu ciy sa yoon su ma jaaxee dem te tànki kilifa laaj ko mu ne lu ma ci man xam nga loolu dafa nekk way woo xamee boo ko tënkoo rek wax la wax la ay wax la ay wax la parce que boo xoolee léegi Euh, sañatoo laal doomi jàmbur maa la koy wax koro te bu njëkkoon dangay am euh, da ngay am sago ak sañ-sañ ci doomu jàmbur mm-hmm. Mm-hmm. te léegi ku ne xam ne ne tey ji yow ki nga dëkkal sax sañoo laal euh, doomam mm-hmm. maanaam moo tax mu ne li fi maam bàyyi woon bàyyi yàq na ko bàyyi yàq na ko ndaw ñi sànku nañu mu ne dama laa bëgg ilif nga bëgg maa ilif ndigalu maam day dellu ginnaaw dëgg la kon donc way woowu doon na woy woo xamee ñuy nuyu maxu an makuños lekulale kelele makuños tole yayi damle makuños lekulale kelele makuños tole yayi damle doole yaay daam. xam nga noonu daan takku daan. doole yaay daam. na ko ko dàqat gën. doole yaay ko takk waraaj. doole yaay daam. waa ñuy waa ñuy waa ñuy nuyu waa Caare ñëpp. parce que waaw non non. kii nekk mu baaxul. kan moo ko jàngal lii tam tëgg baaxul. rang jooju loolu amul ci sabar. rang jooju amul ci sabar. kii ma ko ñaas. bu leen ko laalee gëlalee ma doole yaay daam la. doole loolu yaay daal. Aba. ñuy nuyu waa Thiaré ñëpp fan jugee Aba yàlla na ma yàlla àtteeg moom bàyyi ma. ñuy nuyu waa Thiaré. nuyu waa Yoof. fépp fu bu nekk. tey boo déggee lii sa xel dina sori parce que way wi doon na way woo xam ne boo ko musaane dégg dina am fu mu lay yóbbu. ñu nuyu waa Thiaré yi. mais am na keneen ku wayoon tamit. arafet amana be dama sedam amana be dama feftere nga jaɓana wone wone wone la nda esonna bay seli ko dum ni bay bay seli ngala diga ngam ngam ngam lo joxale togal abal wal ki debbo mane ɓayno maare momadou golti ɓayu kamate sunano ɓaraɗomaɗogayaɗoynama ayo aymaɗomaɗoayle abbaɗo gone lelle xam nga dama bëgg musique dama bëgg musique bëgg ay gan dafa xam ni mi non loolu dafa loolu abaa loolu dafa dim xam nga dim xam nga libu dafa fooyee noo xamee maanaam boo gisee libu Euh, boo ñëwee ci làmb da ngay da nga ci gis ay ndaanaan boo ñëwee ci euh, ci way yi da nga ci gis ay ndaanaan wax naa la que chaque jour nee naa la boo ñëwee euh, ci tefes gi da ngay gis ñu gën a neex maamraan di nekk fa xam nga may nuy may nuy alñang asuloo bay mënul jukk ah.